xol yi defar suñu zone doar găsim filoi, eu să ascan Ceasul nu sunt, să te simți da nga ak nit galgal dama ko gal galgal ndax dafa bëgg am dara mom tam mo do ma gal galgal pour am dara loolu nit ñi nañ wax deug rek te yalla tax kon dal man wax deug yalla tay bis yu tay bi man dama contane ba japp na ni sax man xawmu sax fi ma jëm fan la ndax am mbekté lol ndax mbolo mi fi na ma lol na ma nama naa leen te xamna ni ma len namé wax deug yalla nama ngeen ma ngi len di gërëm bu baaxa baax di len sante di ñaanal soxna mboj mi nga xamé ni ñi samay doom lañu waye mom sama sët lañu naa ko sama sët la ñi ma len jur waye ki sama sët di gërëm bu baaxa baaxa baaxa baax nak sama rak sama xarit Mbay job Mbay Euh, sama rakk nga sama xarit lu yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg ndax sa nijaay Daawuda ba barka démb rek am na kàddu yoo xamee ni weccante nañ ko wax dëgg yàlla daal man daal dama li kontaan bu baax a baax a baax a baax maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp. te am na su am na fu ñu newoon wax na dëgg quoi waaye dañ dem ba xool xam ni ndax ñëpp li ñu bëgg mooy jële jële fi li fi nekk te xool ba xool xam na ni solution bi mooy Soxna Mbodj ak ñi mu àndal. démb maa maa ngi woon ci waxtaan waxtaan bi ñu amoon Ndiaye maa ngi démb maa sax nijaay Mbay Diop ak sama nijaay ñoom Sulaas ñëpp ñu fa woon man daal li may wax mooy maa ngi seen ginnaaw maa ngi ci soxna mbooj maa ngi ci coalition bi maa ngi woon maa woon ci yeewu askan wi waaye man li li ma bëgg mooy lu lu fi jëlee li fi nekk loolu laa bëgg te xam naa ni solution bi mooy soxna mbooj loolu moo tax ma ñëw si moom. waaw jërë ngeen jëf. ndax mbir mi ba nu ko taxawalee loxoom a ngi ba lii ñu fi def dafa ma woo ni ma grand am na lu ma la bàyyi demal sama kër nga jël ko jox soxnaam moo ma ko jox kon maa ngi koy gërëm di ko sant di ko ñaanal yàlla mu yokk ba yëkk gis naa tamit taxawaayam mooy lan. nit ñew na ci mom ne ka candidature dama bëgg nga jàppale ma mu ni man duma ne ci dëkk bi sama mag wémbooñ ne ci dëkk bi may xëccok mom wëlbatiku candidat bi ñu fi samp mu ni leen muy sama dom, soxna mbooj ñu tek fi ma war ka jappalé xar sama tanku tubay ma dem naan ma ngay kay kontal yootu soxna indi si këram di waxtaan ak moom taxawu ko jàppale ko taxawun kon maa ngi koy gërëm di ko sant xam nga nit lu metti metti su la nit defalee teraanga da nga koy wax te taxawaay boobu moom la taxaw te ki ñëwoon ba mu proposé ba mu ànd ak moom pour mu jàppale ko xam na ko nekk naa ak moom waaye keroog bi mu taxawee dama ne kàddu gu ñaaw sax bu ko déggee si kooku day yootu téléphone am ni ko arrêtéel kii ngay wax sama doom la te dafa am ay bokk nag kon danaa ko si gërëm sant ka ndax man ki ñu teg soxna Adja soxna bi mi ñu teg tey su fekkoon te ni moom fara si boppam lii dafa am moom tontuwu si sax man maa war a tontu man waaye moom bu ko déggee bala may tontu sax moom mooy tontu ji moom kon nit du yàq boppam du yàq mbokkam du waxal mbokkam lu ñaaw lii nañ koy rafetal politique nag ñu bare dañ siy wax waaye nag dañ si boole ak ngor boo si goree di jógee lu bare yàq ndax da gis ku ñew sax war la wala sanil dem ba sa kees ga war la kon nañu gëm sunu bop jappalé suñu bok taxawuñ benen bi madame la mer mi Adja Soxna mboj man dama kay sante diga gërem naka wax fi si wa Mbodjeen coalition bi ngi ñun luma ci wax kenn duko dindi lu nuy def dan may laaj fu mu xëyee dana ma laaj si lu nu ne danaa ko xam bu mu bëggul sax ma mer damay gis bu meree rek ma bu sama kanam changé sax nga gis mu woowaat ma téléphone te saxtu moom moo tax ma xar sama tànk tubéy nag si mbooloon mi fu nu war a ñaw ñu ñaw ko fu nu yeew war a yeew ñu yeew ko ba dara bañ xotteeku ndax nag bu ñëpp àndandoo jox la cër te ma maa maa maanaam maguma ci cër moo ko waral. maa ngi nuyoo di jiital ci nuyoo bi sama maam chef du village Alassane Mbodj di sama borom fi sama premier chéri koko di nuyu imam di nuyu sama mbokk jigen borom di nuyu la jeunesse góor ak di nuyu population jama di nuyu grande coalition bi ma andal, di wax touti sama papa Ibrahima Mbodj Ibrahima Kumba dafa am lu mu wax ci commune de jama man nak bala may xuus mbolo mi dafa am question bu len di laaj

yow lañu dénk suufu askan wi fexeel jox askan wi ci suuf si waaye ay na mu ko defe gone gu tuuti ci commune de Diama boo ko laajee mu wax la ko boobu moom mokk na ma tey population Diama waxuma góor ñi de mais jigéen ñi dañu leen def ay ouvrière agricole tey boo demee ci société yooyu jigéen ña ñoo fa ëpp tey ñoom ñoo nekk ay ouvrière agricole kon yaakaar naa ni jigéen ñi am ngeen sas tey jigéen lu ñu taamu woon mu nekk ci kër ga di bégal boroom këram di ko taajal añ di ko taajal reer li ci des yaa ko wax bu boobaa doom yi mën na barkeel waaye tey jigéen juy xëy quatre heures du matin cinq heures du matin léeg-léeg sax nga am kaaru guddi waa lii est-ce que mën na ànd ak njaboot gu barkeel kon jigéen ñi am ngeen sas sas bi mooy tey grande coalition dafa ñëw indi jigéen teg ko ci bopp bi ni li fi nekk mu metti torop jigéen ñi tey lañ ci yaakaar kon yaakaar naa ne jigéen ñi kenn ku ci nekk war nga jël sas bi def ni man la tey ki fi nekk bu fi jógee man maa ko fi jële waaye doom yet war nañu taxaw ndax xam nañu yaay bu nekkee ci bopp commune bi doom dootul am lu mu xalaat ndax yërmande ci yaay lañ ko gën a yaakaar papa Iba li nga fi wax dama koy dëggal parce que li nga wax ci societé boobu tey lan la fi waroon a fay faj xëyu ndaw ñi bu ñu ko installe woon fii dana bare ndaw ji xëy buñ ko fi installer woon dina bare jigéen ak góor ñu fay xëy waaye mu fanq ke ngir rek lan commune bi bëggul ku fi am doole bëggul ku fi am kàttan buggul ku fi def réalisation ndax lan lay ragal kooku am doole remplacer ko waaye tey nag yàlla dafa def ne jigéen ñi lañu indi ñu fas yéene incha allahu rabbi remplacer ko ci kàttanu yàlla di wax ni loolu mu def mboojeen def na ko bundum barrage bi ma dëkk président de la république joxe woon fa programme ñuy aménager jigéen ñi wan leen defal magasin de stockage war leen jox tracteur moissonneuse keroog bu mu déggee ni mbir moomu sama loxo la jaar ndax maa ko wax président ba mu nar koo def gouvernance la dem ni leen ndaw soosu bu ngeen ko ko defalee àndul ak yéen opposante la kon bu leen ko ko defal projet boobu noonu la fanqo directeur FONGIP président moo ko déplacé indi ko ba mu ndoom ngir programme boobu programme boobu foofu la yem ndax lan madame Soxna Mbaj du ko fi réaliser bu ko fi réaliser ëllëg mën na taxaw jàkkaarlook moom waaye xoolal li Mawlaana tabaaraka wa taala di dogal boobu de amul waaye tey yàlla dafa dogal teg fi tey madame Soxna Mbodj mu ànd ak grande coalition ñu fas yéene jàkkaarloog moom ba géej gi fer kon soo nee ma signature amul man mën naa ko dëggal programme bu ñëw mu fanq ndax bañ kenn am doole teraanga bi daal benn kër lay yem baay ak doom waaye xale yi am ngeen sas combat bi ak keur gu ngeen wara mana nek war ngeen fa genn nak parce que gis ngeen ñi jakarlo te sen avenir la te fi bay doon na doom doon fi nek te lolu war ngeen ko éviter ñaari combat la def ñaari combat yi moy lan fexé ba bay du tok jox dom ngeen fi may waxe kon war ngeen ñëw na génn kër yi ngeen nekk te ñëw jàppale grande coalition loolu moo am solo ndax développement ci base lay commencé doogam yéeg ci kaw kon nañ leen defar suñu base suñu localité ba pare di wax nag duñu ñëw fii te duñu dugg ci programme 442 programme 442 bu ñu ñëwee fii dinañ ci dugg waaye ci ban fànn lañ fiy duggee ku nekk xam na ni Vieux Aline Mbodj nekkoon na président transporteur yi ku ne xam na ni tàkk gañ li fi ëpp ay chauffeur lañ programme 442 am lu ñu réservel suñu mbokku chauffeur yi te yaakaar naa ni loolu président Vieux Aline Mbodj anticipé woon na ci biñ ko ko falee doon na doxal loolu muy fexe ba ba formaliser chauffeur yi kenn ku si nek am sa GIE GIE yooyu mu lay permettre ñu man la booleeg institut de finance yi ñu man la financer nga am sa auto momal ko sa bopp te yaakaar naa ne loolu moom commencé woon na fexe ba wutal len ay GIE formalise ko fexe ba wutal seen apprenti yi nga xam ne ñooy ànd ak ñoom bu ñu demee ba war a mën a am permis ñu jàppale leen ci wàllu permi parce que nag programme mu gouvernement président Macky dafa jox doole lool xëyu ndaw ñi wax nañ fi transportu élèves yi

loolu programme 442 programmé na ko kon dañuy def fu ñu dem rek laal tuuti ci programme mu 442 wax nañ fi ci wàllu santé léegi ñu ngi tudd case de santé yi te ci biir département Dagana commune de Diama kese moom la ñu wax ne ñaari at yi benn district jotul dotation wu médicament ñun fas nañu yéene incha allah buñ ñu fi tegee at mu jot lu jëm ci wàllu lu jëm ci wàllu santé dañ koy prioriser ndax nit bu wérul du mën a liggéey du mën a xëy kon li ci des ci programme bi suba la ñuy def lancement bi dinañ invité réseau sociaux yi yëpp ñu ñëw invité presse bi dinañ invité presse bi ñu ñëw fekkee loolu ñu mën ko diffuser ba kenn dootul wax lan mooy programme 442 duma jeexal nag te gërëmuma sama ay mbokk sama ay waajur fi ma ñëw tey fi laa dëkk ndaxte nag Alioune rek Alioune Mané Mbodj rek ak njaag mbooj ñoo bokk ndey ak baay Alioune Mané Mbodj meññ mboojeen gi njaag mbooj moom meññ man sama ay wayjur ñoom ñu bokk ndey ak baay kon samay maam ñoo fi nekk di gërëm samay maam di gërëm samay pàppa ñoo fi nekk kon di gërëm maam bi nga xam ni tey moom la yàlla def tey mu teew fi muy Ibrahima Mbodj di ko gërëm di ko sant te di sant yàlla grande coalition ba mu dooree ba léegi puso rekk la yor di ñaw di ci santaat yàlla ci xéewal gi ñu yàlla xéewale ci sama maam Ibrahima Mbodj di gërëm sama waa kër Mam Amadou Mbodj geureum sama waker mam maam Babacar gërëm sama wa mam alsan, Alsane sama wa mam Magan Mbodj ak sama waker mam Ibrahim Ibrahima Mbodj di geureum ñep di len sant biñu taxawale grande coalition ba tey kenn ku ci nek ci nanga mané ñanga ci jël sa téléphone ñi nga xamné fi kenn ku si nekk di campagne kenn ku si nekk jël alalam jël jotam def si waaye di gërëm sama papa vie bi nga xam ni taxaw naa ba tey yendalatul fanaa la notul jog na ci zaahir ci ji baatin di ma jàppale toog ci sama wet di ma gunge ak grande coalition jërëjëf Mbodj li ñuy wax ñun xamuñu lu dul développement dañu jàpp ne ñun ñoo war a defale waaye kenn waruñu defal waaye sama papa fara li ma defal moom xam na ko man xam naa ko dénk naa lépp yàlla keroog bi ma ko defee defalee muy mbetteel ci man sama rangooñ dafa tuuru parce que dama tàmmul ñu may may dama tàmm di joxe mu yëkkati lu takku ci lu bare ci lu muy def tekk ci sama loxo et fas yéene ma gunge ba keroog

ma nekk ci tête de liste bi waaye Alaaji Abdou Ba nekk ci liste proportionnelle bi incha allah ñu fas yéene mu nekk premier adjoint maire di ko gërëm moom tamit di ko sant di gërëm grande coalition dafa guddi ba nit ñi sonn nañu foog ñu gàttal discours yi jafe-jafe yi dégg nañ ko bu ñu jëlee commune bi dinañ ci def lu ñu man li ñuy jox li ñuy jox mboojeen nag duñu ko wax ci rajo bi waaye dinañ ko jox sam papa Vieux dina ko jottali waa Vieux waa Mbodjeen ñoo xam ñoom fu ñu koy def jërëjëf